ni ko état bi santaane nañ ko defe noonu te am naa yaakaar ne incha allah lii dana fi jóge te ñaanan ko yàlla te ñaan la lan la ñuy def ñaan lañ bëgg te moom la yàlla bëgg te incha am naa yaakaar dana fi jóg nañ konte di ñaan rek incha allah. waaw man ni nga gisee nii man dama yor sama détergent fi mu ne ko ñëw di jënd balaa nga may jox dama lay jox nga nettoyer sa loxo ba pare doolu ma jox li ngay jox may ñaan tamit may ñaaxaat sama mbokku jaaykat ñu def la même ku ñëw rek balaa ma la jox xaalis rek na ko jox mu laal loxoom ba pare mu doon la jox xaalis loolu yëpp dafa bokk rek ci fagaru. li ma joxe conseil rek mooy ñu ñu ñu ñu def niñ ko waxee set sell di def togg lu set kër yi na set njaboot gi na set lépp na set am naa yaakaar ne bu set amee rek. virus bi dana fi jóge bu neexee yàlla te am naa yaakaar dana fi jóge bu neexee yàlla maa ngi ñaan bu baax a baax a baax yàlla dafa bëgg ñu ñaan te yàlla boo ko ñaan dina la may am naa yaakaar dana fi dañ bu neexee yàlla te ñaan yàlla dana ko nangu. waaw ah, maa li may tàggatoo maa ngi leen di sant di leen gërëm seen liggéey rafet na lii day waral na yéen ci askan wi ngeen bokk tey yéen nga jàppale askan wi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax merci beaucoup. maanaam mbir mii nga xamante ni dafa lëmbe Sénégal bon am ci xalaat bu gàtt d' man ni ma ko jàppee mooy que ni lu jóge ca yàlla la. Hmm, jàpp ni affaire politique la parce que. ñu ngi naan affaire politique laa xam nga dugg na fii génn fii mais damaa jàpp ni mbiru yàlla te itam am naa ci xalaat xalaat bi ma ci am mooy man li ma ci jaaxal mooy nii ñu ragale feebar bi ragale wuñ ko sax yàlla suñu borom te itam malgré am na malgré mi ngi def ay effet mais empleur bi nga xamante ni si man jànkat naa ko ci ak ni mu nekk jullit war a jël lépp Euh, delloo suñu borom dañu koo jël teg ko ci feebar bi mel ni feebar bi day tukkal àdduna ma jàpp ni du noonu ak lu mën a doon rek nañ ci ànd ak dal ànd ceeg teey ànd ceeg xel pour mën a résoudre problème bi waaye man li ma ci naqari yi maanaam dañoo jël feebar bi jiital ko daal di jël yàlla am fu feneen fu ko kii foo xamante ne si mbiru yàlla la yàlla moo ko fi indi nan ñaan yàlla d'abord mu téggé ko jam ak salam comme ni sunu sëriñ sunu kilifa yi di waxé bon kenn ku ci nek na nga xam sa digënté ak yalla ak sa digënté ak morom ainsi de suite ainsi de suite jang alquran jàng xasida yi ñaan tàll sunu borom sunuy problème mu réglé ko bi ak yene ak yeneen diiru dara ci yalla manam lu tuuti la ci yalla jël ben affaire rek teg ki kii bi yëpp tay itam euh amana ci benen xalaat moy ni bo xolé Sénégal àddina bi sax dara doxu fi ndax rawatina ak Sénégal et pourtant waroon nañ koo mën a boole ak liggéey fim mu ne service boo dem daanaka mën naa ni liggéeyutul preuve que ni tribunal bi daanaka ci tey suba laa fa kii ñii ñëw nañ ñii ñëwuñu ñii ñi ngi éviter nit ñi ñii lii ñii lii d'accord te itam wàllu set bi nga xamante ni si ñu ngi koy imposer nit ñi di leen ci xiirtati loolu dañuy te Sénégal dañuy xaar ba ba ba jaan ja dem ñuy doog a ñuy doog a kii mais ay set ay kii nan ci nan ci xirtal nit ñi dugal ko ci enseignement public xale bi war a xam li nga xamante ni si moo ko war ci kër ga ca école ba ca école ba ca kër ga su ko defee dana xam ni moom mii lii moo ko war waaye duñ xaar ba feebar ñëw ñu naan xale yi bu leen nit ñi. dee leen raxasoog saabu dee leen di del mais loolu dañ ko war a dugal ci enseignement public bi bu ko defee nit ki war koo xam màggaale ko habitué waale ko su ko defee keneen bu ko gisee koo xam ne jàngiwul sax dana xam ni xale bii kat euh, lii mu def lii mu nekkee mooy yoon waaye duñ xaar ba feebar ñëw wala dara ñëw rek ñu profité gis nga Batalo Joola bi mu fi ñëwee ah ñu daal ni ëpp kenn dootu si charge kenn quelque temps après ñu delluwaat ci si charge mais pour lan mais nan kii politique politique boo xamante il lii day continuer parce que boo xoolee sunu qui euh, euh, chinois yi wala boog sunu euh, kiiw chinois yi bien éducation de base vous me gis ci ñoom boo xamante ni si gisuma ko fenn daan nañ ko ne ci télévision yi bu ñuy dugg ci car wala faut xam ni fu fu mbooloo daje dañuy rang toppante tel tel ainsi de suite ainsi de suite man daal li ma ci naqari daal mooy que ni feebar bi tu bi ci euh, d'accord... il y y fi yalla ci mais ce n'est pas la fin du monde la vie continue C'est pas la fin du monde la vie continue. C'est simple parce que vous bu fi bu fi bu amul sax set dafa war ci kep ku set ci set ci yaram set ci parce que set du da set nga non ci jikko parce que Sénégal àddina sax rawatina Sénégal léegi booy xool tous les moyens sont bons pour am ma ñëw jaar sa kaw pour am triande sama frère pour am xam nga tous les moyens sont loolu du jikko ju loolu du jikko ju baax ba tax na euh, li may conseil li sama xalaat mooy d'abord na mu set ci jikko bu ko defee Nous ñu nga xamanteni si moy tunisie dimbali ci lepp bis ne kilifa yi din ci ñaax euh, virus bi bon d'après ñu ko lu dangereux parce que dana nekk ci yow te doko xam quelque temps après mu teureul la bon yow bu si si euh, bu si sa loxo jotul sa ginnaw fu ne da fa dugg pour mëna régler say problèmes.

dana garaaw trop parce que ñun benn kaaf kaas kafe da ngay dikk ci benn arrêt nga dikk fekk kenn ku ci nekk jëndee kafe jox ñëpp ñu daal ñu daal kii ñu daal ñu daal yi kii bon maanaam benn kopp la bokk benn kuddu la ñuy bokk amuñu individualité daal maanaam dañoo collectif collectif boobu nag virus bi bëgg ko parce que boo waxee aan xaw ma temps de mètre euh, nombre de centimètres xam nga am na nu muy dem nga jël ko boo saqatee boo euh, euh, lié ainsi de ba tax na euh, ni ma ko gisee daal mooy d' accord mais féewu mais féewu mais nag est pas la fin du monde na ko booleeg liggéey na nga te xam ne lii mbir yàlla la et puis ñu xam ni yu ko gënoon a garaaw jaar na fi malgré nag lii moom mi ngi fiy doog am ci àddina àddina bépp bloqué wu ñëpp jël seen i distance doo gis kenn. loolu lii moom mi ngi fiy doog a am bon ci àddina ci li ma ci li ci dégg daal mais nag man daal ñi ma ko kiyee daal mbiri yàlla la et puis ko delloo yàlla ñaan yàlla mu teg ko ci jàmm ak salaam. bon précaution yi la rek na jafe na ndax euh, feebar bi dikk ak léegi gis nañu effet muy def wax euh, sunu mbokk yi pour ñuy jëkk a set ndax boo setee yàlla mën na la cee musal nga set xam sa. fréquentation ni nga koy defee bañ di joxe loxo parce que asalaamaaleykum sax moom mooy nuyoo jullit bu ñu ko dee def eh, eh, yàlla mën nañoo musal ci feebar bi ñu ñaan yàlla rek feebar bi yem fi bañ a yàq dara comme ni ko su eh, ni ko suñu kilifa yi baax yi waxee bi ama ngeen ñëw rek ñu ngi ciy def ay waxtaan fii léegi nii alors asalaamaaleykum jaax na bu bu ñu wàccee en tant que chauffeur dañuy dem raxasu ba pare ndax bi ngay jàpp ak nit ñi ngay nuyu kooku ñu ngi koy def quoi vraiment ñuy ñaan yàlla vraiment. mu bañ fa yak dara ndax li ngeen def sax ñun def na man ma ngi sensibiliser sama wa koñ marbat luga toujours ni leen di toog ak xalé yi di wax ak ñoom di wax ak soxna yi di wax ak paay yi am xam nga ñaan yalla rek vraiment mu yam fi bu sañoon dal vraiment soxna si ñu ñu set ndax set mo la ci mu ci ak nga xam ni ngay euh, dundé ak doomu adama yi quoi. yeen conseil la joxe mooy. Euh, nañuy set d'abord ndax set moom mooy aar doomu aadama ci feebar yu bëri xam ni ngay euh, comporté woo ak fi ngay fréquenté di moytu aussi ay nit yu dajaloo yu bëri parce que état bi li wax dëgg la état ñun jàppale wuñ ko suñu bopp la ñuy jàppale état defu lu dul def li ko war rek waaye li des ñun la en tant que sénégalais vraiment. waaw euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que li ngeen def aussi lu baax la ndax li mus fee am. kon ngeen def loo xam ne ni mosu fi am aussi leen sant leen gërëm di ñaan yàlla rek feebar bi gaaw jóge fi bañ fe kenn daal macha allah. li nga xam ne digle nañ ko docteur yi digle nañ ko daal ñu jaar ci moom mooy li ci gën a ëpp bu loolu jàllee tamit tam ñaan suñu borom mi nga xay moo ko andi ci àddina bi mu jëlee ko fi ndax moom kenn andiwu ko fi moo ko fi andi lu mu bëgg loolaay waaye nag moom nee na ku ko ñaan mu may la ndax mu jëlee ko ci addina bi. waxuma jëlee ko Sénégal rek addina bépp yàlla na ko fi jëlee ci yi ngeen ci mbindeef sallallahu alayhi wa ndax moom rek yàlla rek a ci man dara ndax doy na waar doy waar goo xam ne balaa balaa bu ñëw ci addina bi la rek li nga xam nag maanaam docteur yi digle nañ ko ak waa gouvernement bi digle ko nan ci jaar rek ndax lu ci gën a bari moo ci gën a mën a musli waaye bu ci jër tamit ah pour nga jëlee ko fi moom du yomb. man loolu moom d'accord naa ci parce que nit ñi xaw na nañoo dër bopp tuuti senegal moom dër nañ bopp te itam ah, feebar bi maanaam dañ ko woyofal sobental ko tey nag du du lu ndaw te itam maanaam maanaam ah, gouvernement bi moom man d'accord naa ci ñu jël ci ay commission ndax maanaam bu fekkee jëluñu ko ci nit ñi moom dañoo dër bopp te it bu ñu def li ñu wax it day gën a yokku rek tey jii doo wax nañ ne neuf na ci tey doo wax nañ ne neuf na ci te itam yu ci baree baree baree bari lu mel noonu doo ko andi mbooloo yi ñuy dajale say baay gi mooy li gën di raxasu set di raxasu saabu ak ak ak ak di jéem a set wecc rek loolu daal moo ci tane tey nag loolu lépp li ko jiiti mooy ñaan suñu borom rek nag mu jëlee ko fi ci kaw jàmm ak salaam jëlee ko ci addina bët yàlla na ko yàlla def ci daraje ngeen ji mbindee sallallahu alayhi wa sallam xanaa xanaa xanaa maanaam néewal néewal dajaloo bi rek daal loolu moom mooy li jiitu ak nag foo toll di set rek di raxasoo saabu mooy joxe loxo yu bari it nag loolu daal man loolu dong laay la la laa ci amal lu may wax di ko digle waaye nag daal yal na nu yàlla dimbali rek ci dara yéen ngeen ci mbindeef ko fi ci adduna bépp ndax feebar bon bu bon a bon a bon ndax lii moom bëri ñu ko fàttaliku mu ne am na ci Sénégal moom bëri ñu ko fàttaliku am na am na ci ak ak adduna bii bëri ñu fàttaliku ne am na fi moom. waaw balaa bu yàlla indile man day maa ngi sant nangam temps juróom benn fu at ak nangam waaye xam naa lii moom mosuma koo dégg ci adduna moom mosuma koo dégg te loo xam ni yow maanaam tënne Italie ak daanaka tënne Italie ak France Espagne ak fépp ñooy xay réew yooyu nga xay moom ñoo ëpp doole nga xay maanaam ñu àggulu leen ci wax ñoom la të as ci Sénégal gu ndaw gi te ñoom seenu ni réglé nañ ba kenn du génn kenn du génn France noonu kon nag foofee ñu jaar ñoo ëpp doole war nañ faa mën a jaar loolu la ñu fa jóor tamit ah yàlla na yàlla dimbale waaye pour nga pour nga réglé ko ba du ba du jàll de moom du yomb buñ ko deful ndax loo xam ne maanaam maanaam moom moom ay ngelaw lay doon ak lu ne kenn xamul lu muy kii ah yal na nu yàlla musal rek yal na nu yàlla musal rek man de loolu rek a sama yàlla mu wér mu ci yàlla nu musal rek ci dara yonent sallallahu alayhi wa sallam loolu la waaw. ji li ma xam mooy li suñu ji li xam ba wax ñu ko rek xam nga sama ay dafa ni ku na la nu muy reere ñoom ñoo gën a xam feebar bi ndax ñoom xam nañ ko ci réew yi dégg ci réew yi nga xam ne adduna bi dégg ko. tubarkal la ñu gis dee ni mu ci baree gis ci feer bi gisaguñu ku ko trouvé lu koy faj kon li ñu yaakaar ni moo ci gën a gën mooy set ndax set yonent bi si boppam sallallahu alayhi wa moom la gën a bëgg te ñun dem te ne ba ca moom la gën a set dafa baax boo setee booy sëqat nga loo taf sa sa bakkan sa musbaaru azata yi moom ngay dee taf sa gémmiñ booy sëqat soo dee soo dee tës li moom ngay taf sa bakkan su ko defee tubarkalla lu ñëw mën nga caa mucc te jàngoro ju nekk na noo xam ne nii nga war a bàyyi nuyoo ndax nuyoo bi na nga def mu ni maa ngi fi doy na ci waaye yaa ngay nuyoo yaa ngay joxe loxo yaa ngay akolaatante loolu lépp mën naa ñàkk loolu lépp mën naa ñàkk ndax soo ko defee di nuyoo ko akolaatante mën nga faa indi jàngaro bi te ñun nag surtout sunu zone bi nu dëkke nun waa Louga ndax ku ne dégg rajo yi naan muudu muudu yaa ngi rocc ko di ñëw ñu ngi jaar suuf si ñëw fu ne ña ngi fay jaar di ñëw loolu lépp di sunu naqar sunu sañoon nag moodu moodu yi ne bitim réew te feebar ba ne ca ñoom ñu muñ seen dëkk toog fa ba lii yàlla def ñu wér ak jàmm ak salaam bu ko defee bu ñu ñëwee du ñu wàll kenn ñun buñ leen fekkee du ñu wàll kenn bu nu sañoon daal ñëw boobu ñuy def la ñuy dakkal ndax moo gën a rafet waaw. Louga TV in sama gone sama moromu doom yi góorgóorlu leen ci set bu baax a baax. te góor góorgóorlu leen ci nuyoo bi bàyyi bàyyi joxe loxo góor góor lu ci seen kër bu ngeen demee ngeen di raxasu ba set ak eau de javel madaar ba mu set wecc dégg nga bala ngeen a lekk ngeen raxasu su ngeen paree gel bii danañ indi seen wàll ndax Aminata war ko séddale ci kër ak ak ak village yi bu ñëpp da ngeen ci am te bu ko yàlla dogalee yéen ñëpp da ci am ndax joxe na lu doy pour ñu jox nit ñi bëgg nañu kenn ku ci nekk am ci sa wàll bàyyi na fi nag ku man nit muy roqee jaw mu topp toonu jàppale nu nu ànd moom néewul tàyyi naa néewu sonn naa dafa ànd ak ñun ñu dugg ci kër yi di joxe di séddale nit ñi tubaarkàlla daal ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla la ma waxoon ci commencement ba rek sama yaay dafa noonu ci atu pes ma pes ma ba mu fi ñëwee dañu doon wax naan sarxe nañ ko suñu der ak suñu deru njaboot pour loolu dama bëgg ñëpp jot ci ku nekk di ko ñaan sarxe ko suñu der ak suñu deru njaboot ndax loolu luy dàq musiba sëñ Touba mu baax mi nu yaakaar nag mu waxoon ne anta rahimu samadu rahman an moom mu ay ma naanu ful balaay yal nañu fegal balaay wasiulaa ndax daay bu na daay loolu sëriñ Touba waxoon ni nan koy wax dégg ko nga bërki dem ku ne dégg na Gana Messere bi ko digalaat nit ñi nanu góor góorlu bu baax a baax wopp ji bu ko kenn laam-laam ne mi ngi fi dañuy ñaan yàlla yàlla bu mu agsi ci ñun ak suñu njaboot ak mboolu mboolu mu jullit yàlla na ko yàlla dàqal seppi ko sànni ci àll ba seppi ko ne weñ cim soow yàlla na ko yàlla ci yàlla mu musal daal ci barke nit bi